bo euh, yow ñëpp la jaaxal <laughs> évidemment du man rek. Euh, sauf moom non bon même peut moom parce que. à un génn na ci coalition benn bokk yaakaar la loolu c' est un constat. bàyyi nag conseil économique social environnemental yooyu yëpp c' est des mais on a euh, impression bi ñu ci am maanaam euh, li ñu li ñu ciy gis mooy mais dafa mel bi muy génn da doon les murs <laughs> ci woon trop. et puis génn ba pare di tagg également le président loolu def ko woon bi mu njëkkee génn xam nga jëkkoon na fi génn. Ah, ah. te ay ministre resté bi yoon yóbbaale na ay ministres mais avec beaucoup de gentillesse beaucoup de galanterie alors euh, le jeu n'est pas clair pourquoi parce que il dit quand même boo nekkee premier opposant à l'époque waxuma actuellement nga nekkoon euh, premier opposant dafa am obligation yu posé mm-hmm. euh, parce que dafa am sénégalais yoo xam ne euh, ni mu doxalee arrangé wu leen ñu am ci yow yaakaar. mais ñoo ñëpp la xawoon wor entre guillemets muy muy jéggal ma ci waxin bi ñoom ñëpp la waroon dem rejoindre la loolu ça ne se fait pas erreur stratégique politique boobu ça se paye cash ku naka la conséquence yi aujourd'hui pour gëmati euh, euh, euh, le le candidat Idrissa Seck c'est ça c'est ça le problème de fond maintenant je me dis simplement peut-être xamul Macky day nekk candidat ou pas ou bien xam na ni day nekk candidat à partir de la moment-là il se dit que moom aussi dafay teg au premier tour mais dans tous les cas je pense que génn bi c'est tellement un divorce à l'amiable c'est stratégique que je me dis peut-être que deuxième tour ça ne m'étonnerait pas que ñu. <laughs> ñu ñu àndaat parce que cette grande famille libérale il faut se méfier. diggante Idriss Seck euh, Ablaye Ablaye Wade ak ak Macky Sall il faut se méfier euh, euh, mën nañ tout ou tard mën nañ retrouver wu. parce que opposition bi bi waa wàllu di def assemblée c' est pas une réelle opposition <laughs> n' ce pas moo tax départ Dieng la la la députée là ne pose pas trop de problème à la majorité euh, beneen bi également mooy Idrissa Seck ni mu génnee c' est pas tellement un problème pour Macky donc véritablement ñett ñooñu Euh, pour man réeroowuñu boobu réeroo man loolu laa jàpp. mais est-ce que kon eh, bëggoon poser question si dans même dans le même sillage. est-ce que lu nga ne réeroowuñu génn parce que génn bi dafa rafet est-ce que loolu signifiéwul ne euh, président Macky Sall moom dafay def dafay candidaté wu. loolu nag gën a niru. Mhm. maintenant à la dernière minute on sait jamais en politique. en tant que yaa ngi doon expliquer ne bon euh, renoncement mën na si mën na si am pour bañ coalition bi disloqué wu. day tas. de parce que waa PS ak yooyu am nañ fay fayda bu Macky Sall nekkatul dañuy dem mais mais problème bi mooy euh, li li génn Idriss Seck gën a signalé mooy Macky Sall day nekk candidat peut-être loolu la gën a signalé mais ah mais oui mais mais quand mais quand même laa wax mais quand même tout est c'est-à-dire que mun na teg kenn tout en sachant que kooku mun na perte comme comme kan par exemple Abdoulaye Daouda a Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr. mais ñoom est-ce qu'ils sont quoi Abdoulaye Daouda Diallo. non c'est un homme politique. amul candidat boo xam ne a priori même Macky Sall bi muy nekk candidat en 2012 personne ne misait sur lui. donc a priori on ne pas. mais xeex la laaj. mais coalition bi ko fa mën di teg ku dul Macky Sall ce sera compliqué pour lui maintenant est-ce que deuxième tour ñoom il compte se retrouver en fragilisant davantage l'opposition parce que il dit rejoindre na opposition mais commencer sànni xeer c'est-à-dire que euh, foofu euh, stratégie bi mooy diviser maximum l'opposition mm-hmm. et parce que ñaari ñaari stratégie laa gis mm-hmm. diviser l'opposition et la divertir divertir mooy arrestation yi procès yi gars yi nekk ci loolu di ko lijjanti. duñu tal dara duñu tal lu bëri. nga nga diviser leen. Idrissa Seck ñëw naan maay premier. kii naan non man maay premier. Sonko su demee lan xasante. ci yoo xam ne amul benn njëriñ.